yëpp di jiital ci nuyo bi Serigne Bassirou Anta Niang mi nga xam ne mooy xalifu xalifa njabootu borom Daaru Moxti yëpp di ko ñaanal yàlla na ko yàlla gën a yàggal suñu kanam te gën a yokk ak wéram di jaarale suñu nuyoo ak suñu ziar ci moom pour mu joxal ñu ko Serigne Mountakha Mbacké mi nga xam ne mooy xalif général kullu di ko ñaanal moom itam yàlla na ko yàlla gën a yàggal suñu kanam te gën a yokk ak wéram di nuyu ak di ziare le chef de village Serigne Cheikh safay Mbacké ak le porte-parole de la famille Serigne Bassirou Abdou Khodos di nuyu njabootu Daaru Moxti gi yëpp di leen ziar di leen ñaanal màggaluk jàmm ak salaam. Euh, comme ni nga ko waxee ah déjà ñaari at ngi nii màggal gi organiser wuñ ko comme niñ koy organiser nii daan nañ ko màggal mais comme Covid daf fi jaaroon moo tax kenn mënutoon a woote ay ndaje yu mel noonu. ren nag ñu reprendre comme niñ ko daan euh, defee euh, dajeeg aussi comme ni nga ko waxee yàlla dogal ñu dugg suñu deuxième mandat euh, nga xam ne mooy suñu premier màggal mën nañoo wax ci premier ci deuxième mandat bi di coïncider ak premier màggal bi ñu relancé waatee organisation màggal comme niñ ko daan organiser mu nekk loo xam ñun ñëpp aussi xam nañ ne lu exceptionnel lay doon lu extraordinaire lay doon. tàmbali nañ ko gis ci gan ñi gis nañ ko ci organisation méthodique bi nga xam aussi euh, dugalaat nañ ko ci biir euh, ci biir liggéey bi mais loolu aussi euh, xam nga màggalu Daaru Muxti moo ngi célébrer retrouvailles entre Serigne Touba ak borom daaru ku nekk xam ne diggante Serigne Touba ak borom daaru bi muy dem moom la dénkoon njaboot gi bi mu dellusiwaatee bi ñuy gisante boobu la ñuy célébrer ñun waa ñun waa Daaru moxti mu nekk bisu mbégte boo xam ne ni euh, waa Daaru Muxti yëpp ak képp koo xam ne yaa ngi bokk ci njabootu borom Touba rek euh, mbégte lay doon ci ci ci yow donc organisation bi itam am na loo xam moo ci war mairie bi euh, muy accompagner particulièrement les service techniques taalibe lañ comme ni nga ko waxee ci dëkk bi conseil yi ñu ànd lépp aussi nekk ay taalibe am lu leen war seen diggante ak sëriñ bi loolu aussi ñu ngi koy dox Euh, pour màggal gi mën a dox mën a jàll ci jàmm ak salaam mais service technique yi nga xam ne ñoo nekk ci biir dëkk bi aussi ku ci nekk mairie bi accompagner na la ci nim la war a accompagner pour nga mën a doxal sa liggéey comme ni nga ko bëggee moo ngi commencé ci gendarmerie bi accompagner leen pour ñu mën a liggéey ñoom itam seen liggéey di organiser ay ronde ci guddi gi di def ay rafle di organiser la la sécurité mais également service di d'hygiène bi nga xam ne aussi mooy toppatoo ñam yeeg yëf yi ak saupoudrer dëkk bi pour rey yooyu yeeg yu mel noonu moom itam accompagner nañ ko ci niñ ko war a accompagner pour mu mën def liggéey waa service d'élevage bi nga xam ne ku nekk xam ne ne jamono yi am na ay euh, xaj yoo xam ñi ngi ci dëkk bi léeg-léeg ñu koy waaye xaju yu génn yu mel noonu ñu accompagner aussi service d'élevage pour que ñoom itam ñu mën a éliminer euh, xaj yooyu ñoo ngi xam ne ñoo ngi fi nekk di di loraate taalibe taalibe yi aussi ñoo ngi organiser wu di def ay set setal ci dëkk bi pour dëkk bi set loolu aussi mairie accompagner leen bu baax a baax pour ñu mën a organiser loolu mais aussi l' éclairage public parce que dëkk bi aussi dafa soxla mu leer nañ rawatina si guddi màggal yi ñu nekk loolu aussi mairie bi moo ngi ci depuis presque deux à trois semaines suñu équipe yi ñoo ngi sur le terrain di changer lampe yi di renforcer également euh, l' éclairage public pour que dëkk bi nekk dëkk boo xam bu leer lay doon dëkk bu am sécurité lay lay doon ñoo ngi travailler aussi ak ñi nga xam ñoo yor ndox mi parce que yàlla dogal na ki nga xam ne aussi moom la sëriñ bi dénk ndox mi muy alaaji Cheikh Mbacke Fall moom itam conseil municipal la ba pare nekk adjoint au maire ce qui fekk liggéey bi ñu ngi ko ànd ak ak moom ak sëriñ Bass mi nga xam ne mooy président comité d'organisation bi aussi ñoo ngi ànd ak moom fu ñu ko mën a taxaw rek te moom munu faa dem ndax jot gi mayewu ko ñu mën ko faa demal wala ñu mën ko faa euh, taxawal sët yi aussi ñoo ngi nekk di organiser wu pour que nit ñi gën a xam màggalug daar Moussi parce que aujourd'hui daar Moussi mooy la deuxième agglomération de la région de Louga en terme de population daar Moussi moo fi gën a rëy boo génnee luga mais aussi mooy deuxième capital di mouridisme donc loolu aussi dafa baax ñi nga xam ne xamuñu ko woon ñu gën ko xam te je pense que màggal gi am na ay activités yu bari yoo xam ne ni tax na ñi xamutoon fan mooy Darou Moussi ñi xamutoon lan mooy Darou Moussi ñi xamutoon lan mooy poids Darou Moussi ak rôle Darou Moussi sur le mouridisme ak dans la région de Louga et dans le pays gën ko xam bu baax a baax loolu kon dañ ciy sant ñooñu nga xam ne ñoo nekk ci loolu muy sët yi muy taalibe yi mais également les médias yi nga xam aussi ñoo ngi jàllale message yooyu à travers des émissions yoo xam ñoo ngi koy def ci seeni organes. heureusement nag euh, ñun euh, chaque fois ñoo ngi réfléchir nan lañ war a def ba màggal gi. ñu mën ci profiter wu carrément en terme de recouvrement sur le plan fiscal mais malheureusement réussir guñ ko ñoo ngi ciy xalaat ñoo ngi wut ay gars yoo xam nañ ci expérience mais vraiment n'a pas encore trouvé le bon bout même cette année encore c'est encore pire parce que cette année gars yi ñoo ngi yor seen place mais amul kenn koo xam ne fay na place ba mu ba mu toog boo ci xoolee ñi ko ci fay bariwuñ donc li ñu ciy recouvrer en réalité c'est absolument rien du tout mais ñoo ngi travailler pour que ce deuxième mandat là nekk une occasion boo xam ne ni daañ mën a réfléchir sur toutes les niches de financement ñu mën ko exploiter au bénéfice de la collectivité territoriale et au bénéfice donc de la population ou des population de de Darou pour ce qui nous concerne ñun la mairie éclairage public bi nga xam ne ñoo ngi ko waroon a defaraat li ñu ci mën waroon def yëpp def nañ yëpp sànq si ay booru 14 heures maa ngi dégganteeg équipe technique yi nga xam ne ñoo ngi sur le terrain ñu may wax ne euh, pour le moment l' essentiel du travail est déjà est déjà fait di côté de la Sénélec également Sénélec mi ngi ñuy accompagner avec 15 kilomètres en collaboration avec le marabout le chef de village ak la mairie ñoo ngi liggéey ak ñoom pour identifier les sites yi nga xam ne war nañ fa def extension euh, extension courant mais également extension des points des points lumineux côté boobu aussi euh, macha allah ça marche très bien euh, côté ndox bi aussi euh, ki nga xam ne moo yor forage yi aussi dernière information yi ñu ci amoon mooy ne pour le moment il pas encore de de problème bu ñu bu ñu mën a wax par rapport ak euh, ak ni forage yi war a war a war a doxe donc pour l'essentiel daal jàpp nañ ne di côté de la mairie li ko ci waroon te mënoon ko def def na ko li nga xam ne itam mi ngi war les services de l'État la mairie aussi mi ngi leen di jéem a pour que ñu mën ko dérouler comme ils doivent le faire. dañu wax sànq ne la taalibe lañ nekk maire mais taalibe bi taalibe bi moo moo moo jiitu parce que dañ koy wax toujours ne ñun ay taalibe lañ laata ñoo nekk maire bi donc ñun ak taalibe yi nekk ca tool ya laxasaayu ak seen digg ñun ak ñoom ñoo yem rek dañu nekk ci mairie bi laxasaayu. pour liggéeyal borom euh, borom daaru donc màggal gi aussi li ñu ci war mooy fexe ba nga xam ne gan yi ñëw ci dëkk bi ñu fexe ba ñoom bu ñëwee ci dëkk bi lépp loo xam soxla nañ ko ci dañ ko mën a am maanaam ñu dalal leen dëkkal leen lépp loo xam soxla nañ ko ci mbirum xewloog euh, berneel ak yooyu yëpp euh, bëgg nañ mu yomb daal gan yi nga xam ne ñoo ngi ñëw ci ci dëkk bi gan ñi génn xawma dëkk yi génn jox gan ñi ñu dëkk tëdd tëdd bu baax lekk lekk bu baax te loolu ça commence euh, depuis quelque jours et je pense que loolu mooy loolu mooy continuer loolu la ñuy ñaaxaat population bi ñu nekk ci ci ci loolu pour ñu am un très bon euh, màggal. au-delà de la mairie ak euh, sëriñ bi parce que sëriñ bi mooy organiser événement bi ñu ngi ciy liggéey ak leta pour ñu gën a mën a organiser au moins la circulation à Darou par exemple fexe ba nga xam ne Darou Mousty tali yi dana yokk. Daaru Musti dina am ay ab corniche boo xam ne nii di nga ko mën a wër su fekkee ne ñëwuloo ci biir dëkk bi te doo gêner ñu nekk ci biir dëkk bi mais également ci biir dëkk bi ñu mën a am ay tali yoo xam foo bëgg a dem da nga fa dem parce que aujourd'hui ak situation màggal gi fi ñuy taxawloo oto yi yenn oto yi dañu am problème pour dem ci yenn mbedd yi parce que suuf la donc loolu aussi ñoo ngi ñaan gouvernement bi mu gën ñu ci jàppale surtout dans le cadre de certains projets programmes ñu mën ci bénéficier wu comme d'autres villes niñ ci bénéficié woo Darou Moussi gaaw bénéficié wu ci parce que amoon nañ fi ay promesse Promoville ñëw na fi Ageroute ñëw na fi am na ay natt yu ñu defoon mais jusqu'à présent ça tarde à se concrétiser et yaakaar nañ ne aussi ci année yi ñu jëm wala déwén rek du ko sori Promoville ak Ageroute danañ concrétiser loolu ñu waxoon pour que Darou Moussi mën a am ay tali mën a am suffisamment de déviation yoo xam ne nit ñi dootuñu am ay jafe-jafe pour dugg ci biir dëkk bi wala pour wër dëkk bi. santé aussi nu en tant que collectivité territoriale la carte sanitaire u Darou si dañ ko yokk bu baax a baax parce que fexe nañ ba tey ji Arafa poste de santé mi ngi dox bu baax a baax mais poste de santé am na Sarsara poste de santé am na Kër Aliou Ndiaye poste de santé am na Dibiad poste de santé am na Yaa Dakar ensuite plus de centres de santé qui datent de 94 euh, mais les autres c'est grâce à la mairie qu'on les a eu cela veut dire que donc moo ngi pour que carte sanitaire bi yaatu mais également dëkk yi nga xam ne war nañoo am aussi structure de santé ñu mën a am structure de santé li ñu desee ñoo ngi koy nekk di def itam mooy relever le plateau technique du centre de santé ñoo ngi liggéey pour que centre de santé bi am un plateau technique efficace mais également travailler à ce que le centre de santé soit érigé en établissement public de santé loolu ci lañ nekk di liggéey avec les autorités sanitaires de l'État pour que Darou si mën a am Euh, hôpital jóge ci centre santé mën a am. aussi comme ni ma ko waxee sànq dëkk bi ni muy yokkoo la moo tax malgré liñ ciy jéem ñun di def ay extension ñun en tant que collectivité territoriale ak li ñu Sénélec di jàppale euh, grâce au marabu ci màggal gi bu ñëwee soo ko xoolee da ngay foog ne Darou Mousty ba léegi courant bi des na alors que euh, dëkk bi mooy màgg màggin bu bu bu gaaw macha allah comme ni ko borom dëkk bi bëgge woon mais soo xoolee tey jii rek ci mbirum éclairage public rek. plus de 4000 lampadaires yaa ngi ko am ci biir ci biir dëkk bi loolu nag xam nga lu am solo la boole kook tey jii 15 kilomètres mi ngi duggaat yeneen année yi ay 10 kilomètres lañ doon def wala 12 par màggal nga xam ne kon li fi dugg ci ay kilomètres bari na mais dëkk bi yaatuwaay bi tax na euh, am na ñu ko xamul soo leen waxee Darou Mouhty dañu foog ne dëkk bu bu ndaw la dëkk bu tuuti la village la alors que c'est une grande agglomération boo xam ne nii. pour nga xam ko rek il faut nga dugg fi yéen ñi xam naa su ngeen duggee ci biir dëkk bi da ngeen gis ne dëkk bi ndekk de bokkut ak dëkk bi niñ ko yaakaar aujourd'hui màggal Daaru Muxti jàpp nañ ne mooy deuxième màggal bu gën a rëy ci yoonu murit parce que ginnaaw màggal Touba gisuñu sax événement religieux boo xam ne ni gën na rëy événement bu bu bu bu Daaru Muxti c'est aussi Carrefour la parce que tey jii soo jegee Saalum bara dem Ndar munoo jaar fu dul Daaru donc te daaru musi mën nga fi départ dem ndakaaru mën nga départ dem ndar dem Louga dem Kébémer dem Touba dem njaareem parce que am na yoon woo xam ne dem fii ak euh, njaareem su matee juróom fukki kilomètre ca lay ca yem mais malheureusement moom ak autoroute bi rek fii ak autoroute bi soo ko jëloon ci yoon boobu ñuy wax mi ngi jaar diwaan si la dem ndindi dem ci autoroute bi soo ko xoolee su matee fanweeri kilomètre juróom ca lay ca lay yem mais malheureusement tali boobu kenn defaru ko tali yoonu suuf la ñoo ngi invité gouvernement bi mu jàpp ñu pour que ñu man ko tali nga xam ne dana désengorger même ñi Touba parce que képp koo xam ne nii danga nga doon romb Touba mën nga jaaree par da Daaru Muxti mu gaaw ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di souhaiter à tout le monde un très bon Magal de de Darou Moussi édition 2022